الشيخ الأمين موافقي يقول راجي الخالق هو الأمين موافقي حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الأنام أكملوا إتمام ما أؤملوا أسماؤه الشريفة عديدة منيفة قد جاء في القرآن عن الإله اسمان أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mabuusu rahmatan lil aalamiin wa ala aalihi wa sahaabatihi ajmaciin amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu boroom tabaaraka wa taala nuyoo bi ak waxtaan bi fekk si leen ci jàmm jotaay bi weesu waxtaanu nañ ci duwaawu subh ñu jotoon yam ci koo xam ne dafay dugg ci jàkka li nga xam ne loolu la war a wax naka doon tamit buy dox maanaam nit ki bu yeewoo euh, bay dem ci jàkka ji ba dem toog ci jàkka bu fekkee ci fajar la diggante fajar bi ak suba bi mooy julli yi yan ñaan la ci mën a ñaan naka noonu tamit buy dugg ci jàkka ji yan ñaan la la la mën a ñaan kon incha allah nit ki bu fekkee nag dafa julli ba pare xam naa tey loolu la gis nit ki bu jullee ba pare incha dafa war toog fi nga xam ne moom la li gën moom mooy mu toog fi nga xam ne moom la jullee bu paree mu dal di def ay azkaaram azkaar yi nga xam ne mooy zikkar yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngale mooy déjà euh, boo jullee ba say tasbiix mooy subhaanallah bi 33 alhamdulilah bi 33 allahu akbar bi 33 boo paree ci loolu nga daal di def yeneen yi nga xam ne ne euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la jàngale lu ci mel ne ayatul kursiw mooy allahu laa ilaha illa huwa alxayul xayum laa taxusuhu sinatu wala naw ila axiri aaya ba mu jeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne képp koo xam ne saa yoo jullee ba pare tari nga li nga xam ne mooy ayatul kursiyu ba keroog ngay génn àdduna lenn rek moo dox sa diggante ak dugg ak dugg àjjana te mooy dee kon loolu liñ ci déggee moom mooy ne képp koo xam ne yaa ngi saxoo ayatul kursiyu lenn rek moo nekk loo xam ne moo lay mooy dox sa diggante ak ak aljana moom mooy génn àdduna kon liñ ciy déggee moom mooy nit bu fekkee saxoo na ko bu génnee àdduna bu boobaa am nañ yaakaar ci moom bu baax ndax yonent bi alayhi salaam nu mu ko waxee ne dina dugg àjjana naka noon tamit am na yeneen ñaan yoo xam ne ne mën nga ko ci boole lu ci mel ne euh, ñaan bi nga xam ne ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la joxoon Muaz ibnu Jabar Muaz ibnu Jabal radiyallahu taala anhu te mooy allahuma ayinni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika may xéewal ala zikrika ci ma lay tudd wa shukrika te ma lay sant wa xusni na ibadatika te tamit may rafetal jaamu yàlla bi nga xam ne moom lay jaamu yàlla allahumma ayinni ayinni ala zikrika wa shukrika wa xusni ibadatika donc loolu moom mooy ñi yeneen ñaan yi nga xam ne moom nga ko mën a ñaan naka noonu tamit mën nga ñaan lu ci mel ne allahumma inni as'aluka fi'lul xayraat wa tarkul munkaraat wa xubbul masaakin loolu tamit bokk na ci nga xam ne ne rot na ci eh, xadiis yi boroom maa ngi lay ñaan nga may ma eh, may def ay jëf yu jëf yu baax maam jëf yu baax yi ma koy def wa tarkul munkaraat ma bàyyi jëf yu bon yi wa xubbul masaakiin ma bëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy pauvres yi ñi nga xam ne dañoo ñàkk ñi ñàkk yi yàlla nga ma may tamit xol boo xam ne dama leen di bëgg incha allah ndax lool lu am solo la ñaan bi mu daal ci teg fa isa aradta bi ibaadika fitnatan faxbit nii ilayka ayru maftunin mu ne bu fekkee da ngaa bëgg nag ci sa jaam bu fekkee da ngaa bëgg ci sa jaam yi fitna boo nammee ci sa ba jaam yi fitna yàlla nga ma làq ca yow ma nekk koo xam ne ne kenn du ko fitnaal kon loolu la ngay gis ne ne ñaan la boo xam ne ñaan la bu dajaloo boo xam ne ne bu jara bàyyi xel bu am solo la waaye ñaan boobu comme ayatul kursi bu saa yoo jullee ba pare moom nga koy ñaan te yooyu yëpp dafa rot ci xadis yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka noonu tamit bokk na ci yeneen yi nga xam ne mën nga ko def ci jamono yi nga xam ne moom nga toog ndax jamono jooju jamono zikkar la jamono ñaan la bokk na ci nga wax lu huwallahu ñetti yoon naka noonu tamit wala onze rabbil falax ñetti yoon naka noonu tamit wala onze rabbin naas ñetti yoon donc loolu tamit ngay wax boo waxee loolu ba pare nga tëf li diwoo ko ci sa kanam ak wala ci sa yaram comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu ko doon def bu fekkee nag tis baar la ak tàkkusaan mooy naaj bi fu muy feeñee boobaa euh, benn bu ci nekk benn yoon rek nga koy def boo jullee ba pare comme xul la waxat benn yoon bi la wala zer bil falax benn yoon nga koy def wala a'uuzu rabbi naas benn yoon nga koy def bu fekkee timis ak gee ak suba nag bu nekk ñetti yoon nga koy def naka noonu tamit e, mun na ñaan soxlaam waaye dafa am teggin yoo xam ne moom lañuy ñaane yan lan mooy tegginu ñaan bokk na ci tegginu ñaan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa li nga xam ne ne moom la jàngaloon saxaaba bi te mooy booy ñaan dangay ngay tàmbalee ci bàkk yàlla bokk na ci alhamdulillah wa alhamdulillahi rabbil alamin naka noonu tamit nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koy kuy ñaan rek mën nga ko defee nii ndax yonent bi sallallahu alayhi wa la ko jàngalee mooy ne da ngay jóg njëkk tàgg suñu borom tabaraka wa taala te mooy bu ci gën a gàtt te gën ci màgg mooy alhamdulilahi rabbil alamin boo waxee loolu ba pare nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci siixa bu mu mënta doon allahuma salli ala sayyidina muhammad wala sallallahu ala muhammad yaay xool daal boo waxee loolu pare nga doog a ñaan nag sa ñaan sa soxla nga ñaan sa soxla boo pare nga tëjaat ak salaatu ala nabi boo tëjee ak salaatu ala bu boobaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na la comme li mu waxee woon ne eh, nit ku nekk buñ ko nangulee ñaan yi ñetti anam yi nga xam ne ne moom nañ ko koy nangulee te gisoon nañ ko jot jotaay bu njëkk bi wa naka noonu tamit loolu moom mooy bu fekkee da ngay ñaanal sa bopp wala rek ñaan yi boo koy def tamit mun nga ko ubbee noonu wala mun nga ko defee noonu beneen ñaan mi nga xam ne moom ngay ñaan ci suba mooy asbaxna wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin xadir rabbi asaluka xayru ma fi hada yawm wa xayru ma baad وأعوذ بك من شر ما في هذا يوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في الخبر وعذاب في النار kon loolu lu jar a bàyyi xel la bu ñu koy tënk dangay wax ne ne maa ngi xëy ci nguur suñu borom tabaraka wa taala di ko sant naka noonu tamit di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom mooy koo xam ne ne kenn waru koo bokkaale ak kenn moom moo yor nguur gi ndaka noonu tamit moo yor cant gi moom rek nañ war a cant wa huwa ala kulli xarit dafa nekk koo xam ne ne lépp ci loxoom la nekk lépp ci ndogalam la ne moom mooy def mooy dogal lépp mooy def tamit lu ko neex nga daal mu daal di ñaan ne gis nga fii comme li ñu waxoon ci ne da ngay njëkk tàgg suñu borom tabaaraka wa taala dooga def salaatu ala nabi doog a ñaan fii gis nga ñaan bi lu mu tëddee noonu noonu la def tagg suñu borom tabaaraka wa taala doog a nag ñaan lan la ñaan ci ñaan bi moom mooy rabbi asaluka asaluka xayru ma fi haza yawm yow yàlla maa ngi lay ñaan yow sama boroom maa ngi lay ñaan eh, lu gën ci li nga xam nit ki moom la war a mën a am ci bile bis mooy ci bisu tey bi wa xayru ma ak lépp loo xam ne lu baax la loo xam ne mooy li nga xam ne ci yeneen jours yi ñëw waaye tamit maa ngi lay muslu ci lépp loo xam ne lu bon la ci mu dal ma ci jour journée bi naka noonu tamit lépp loo xam ne lu bon lu bon la lu nekk tamit luy dëgmal luy ñëw après yàlla yàlla nga ma musal ci li nga xam ne mooy tayal mooy alkasal moom lay wax kon yàlla yàlla nga ma musal ci tayal ndaxte nit ki gis nga da ngay njëkk ñaan waaye tamit li nga xam ne mooy lay tax tara tax a am nga am alal li lay tax a tamit am nga am lu baax mooy lan premier moom mooy mu muslu ci lan ci li nga xam ne mooy tayal wasu i kibari naka noonu tamit ci nga xam ne mooy rëy ak jikko yoo xam ne ne baaxul mu ne rabbi auzu bika min ah, min azabin naari min azabin fi naar yàlla maa ngi muslu ci yow ci li nga xam ne ne moom mooy mbugalu safara خديجة العفيفة المرأة الشريفة لصدقه وعفته وذاك قبل بعثته وأحسن التجارة للحرة المختارة وبعد خمس ثبتت مع الثلاثين أتت شارك قومه البناء بكعب yeneen ñaan yoo xam ne mën nga ko ñaan ci suba si mais am na beneen bu gën a gàtt lu ci mel ne allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika naxya wa bika namuut wa ilayka nushur mu ne suñu boroom tabaraka wa taala bika asbax naa ci yow nañ ci yow nañ dañ xëye naka noonu tamit ci yow nañuy gontoo maanaam ci say ndigal ak ci say tere wa bika naxya te ci yow nañuy dund ci à travers yow maanaam yow yaa ñu may dund naka noonu tamit yaa ñu may wa bika namuutu te ci yow maanaam yow yaa ñuy yaa ñuy rey yaa ñuy dundloo yaa ñuy rey naka noonu tamit wa ilaykal nushur te ci yow nañuy te nañuy dellu te ci yow la dellu bi am naka doon tamit bokk na ñaan yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu kon bu ma baamuwaatee ñaan bi allahuma bi ka asbaxnaa wa bi am bi allahuma bi ka asbaxnaa wa bi ka amsaynaa wa bi ka wa bi namut wa ilayka nushur allahum bika asbaxna wa am amsayna wa bika naxya wa bika namuut wa ilayka nushur allahuma bika asbaxna wa am amsayna wa bika naxya wa bika namuut wa ilayka nushur kon loolu lu jara bàyyi xel la beneen ñaan bi nga xam ne ne moom la ñuy tëjee te mooy ñaan bu ama am solo boo xam ne ne euh, bu mat a def la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa da ko tuddee saydil istixfaar mooy ñaan boo xam ne mu jéggalu boo xam ne moo gën ci jéggalu yi sixa boobu noonu yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne képp koo xam ne ne jàng ko ci suba si ak ci ngoon si waa ci guddi gi te nga gëm ni nga xam ne moom nañ ci dige bu boobaa boo deewee ci diggante bi dangay ngay dugg àjjana. كما بالخبر الصادق المشتهر فأخبر بما جرى خديجة المطهرة وما رآه وسمع وكيف خاف وفزع فأخبر lii lu jar a bàyyi xel la lu jar a fonk la lu jar a lu jar a takkoo la ndax loo xam ne ne dalay dugal àjjana loolu boo ko déggee surtout nag mu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la xam ne ne nekkul benn waay rek moo taxaw di wax ne ne lii boo ko defee dugg àjjana waaye mu nekk loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko wax ne lii nii koo def ba pare te gëm ko liñ ci liñ ci wax di nga dugg àjjana kon loolu moyen la boo xam ne danga nga cee war a góorlu pour di ko def lu bari kon mooy lan loolu mu may ñaan bi mooy allahumma anta rabbi laa ilaha illa ant allahuma anta rabbi laa ilaha illa ant xalaxtani wa ana abduka xalaxtani wa ana abduka wa ana wa ana ala ahdika wa wahdika wa ana ala wahdika wa wahdi wa ana ala ahdika wa wahdika mastataxtu mastataxtu auzu bika min sharri ma sanaxtu auzu bika min sharri ma sanaxtu abu laka bi nixmatika alayya abu laka bi nixmatika alayya wa abu bi zanbi wa abu bi zanbi faxfir lii faxfir lii fa innahu laa yaxfiru zunuba illaa ant fa innahu laa yaxfiru zunuba illaa ant kon loolu ña mooy ñaan bi mu nekk ñaan bu jara bàyyi xel bu am solo ne da ngay wax suñu borom yow suñu borom tabaraka wa taala yow yaay sama boroom yow yaay yàlla amul benn yàlla bu ñu wara a jaamu kudul yow yow yaa ma bind te man maay sa jaam kon maa ci <clears throat> kon maa ngi jël li nga xam ne moom mooy samay engagement naka noonu tamit lépp loo xam ne ne dige la boo xam ne ne dama ko digee sama diggante yow maa ngi ciy jéem a def sama kéemtalaay kàttan maa ngi jël sama bopp sànni ko ci li nga xam ne mooy sa kaaraange contre lépp loo xam ne ne lu bon la loo xam ne ne dama ko dama koo def ndax nit ki def li ngay def li nga xam ne mooy bàkkaar mun na tax mu mu mu nekk contre yow kon maa ngi làkkatu ci suñu borom tabaaraka wa ngir lépp loo xam ne lu bon la mu bañ ma dal naka noonu tamit mu teg ci ci biir ñaan mi ne maa ngi maa ngi nangu li nga xam ne mooy maa ngi xàmmee li nga xam ne ne mooy say xéewal yi nga xam ne moom nga moom nga ma defal naka noonu tamit maa ngi xàmmee maa ngi reconnaître maa ngi nangu li nga xam ne ne moom mooy bàkkaar yi nga xam ne ne man moom lay def kon amul kenn koo xam ne ne mooy jéggale bàkkaar yooyu kudul yow kon jéggal ma yow suñu borom tabaraka wa la kon nga gis ne ne loolu ñaan la boo xam ne tamit ñaan bu am solo la ñaan la boo xam ne ñaan bu jara bàyyi xel la incha allah jotaay bii di ñëw ñu yeggali ci yeneen yi ñaan incha allah in uridu illa al-islaah mastata'tu ma tawfiqi illa billah subhaana rabbika rabbil de amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin تصدق بالكلام مع صلة الأرحام وتكرم الضيوف وتسعب الملهوف وتكسب المعدوم فالخوض لن يدوم واصطحبته زوجه لعالم تعرفه هو ابن عمها الولي وارقة بن نوفل